bël seen bopp bari mais man bëgg naa xam lu personnel li ma lay laaj nag Mbacké maa ci ciy tub bu wër dama bëgg a xam yow lan moo la gën a neex ci Serigne Touba. lépp lépp lépp du question ngëm murit on l'aime tout on l'aime barke Xadimu Rasul nu mu demee baax na barke nooree bi foofu lañ koy foofu lañ koy tëjee yu euh, ngi lay sant bu baax.